toll ci fukk ki ñaari organisation jëm ci wàllum napp gi ñi nga xam ne bépp acteur bi nga xam ne mu ngi yëngu ci secteur bi bokk na ci organisation yooyu nag ñoom ñoo signé charte bi bokk na ci engagement yi ñu jël nag muy aar géej gi. ñu ne nañu leen dakkal bépp licence de pêche boo xamante ni dañu koy jox borom bato mu war di ko nappee ci jën woo xamante ni jàpp nañ ni jën woowu. ni ñu koy nappee dafa jéggi dayoo ba jën woowu mu ngi ci yoonu jeex ci géej gi. mu am itam ay engagement yu jëm ci wàllum gën a ñoŋal wàllum napp gi ak itam ñoŋal liggéeyuk nappkat yi. kon pétrole boobu ñu ngi doon sàkku état bi mu fàggul ci nappkat yi loo xamante ni dégg nga tey ëllëg bu fekkee ni pétrole def na jéyee ci biir géej gi lu mel ni lu ñuy wax ay marée noire ak yooyu dégg nga. Euh, ñu mën ci euh, dédommager ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy euh, liggéeykat yi. li ñeel njiital organisation yi nag nga xam ne ñoom ñooy njëkk a signé charte bi la ñoom ñu ngi woo candidat yi bokk ci élection présidentielle yi ñu doxal ko. mooy ñu ñu ngi si derrière si coalition bi ba tax képp koo xam ne tey bëgg nga wax loo xam ni luy jëmale na ba kanam la wala ëllëg bu la yàlla dénkee nga mën taxaw pour valider lii. lii defar nag mooy defar nga nag pour Sénégal candidat yi xam ne lii du pour Ndiob rek pour l'avenir du Sénégal du avenir pêche kese vu la place de la pêche bi muy occupé dans l'économie de acteurs yi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllum pêche bi nag teg nañu ci taabalu candidat yi ak ki nga xam ne moom moo nar a doon président njiital réewu Sénégal ab document bu toll ci fukk ak ñetti engagement yi nga xam ne jàpp nañu ne so ca sukkandiku dina gën a ñoŋal secteur u pêche bi.